الحمد لله ذي الغفران والكرم. xoolal yi ma lay wan ni mu rafetee. waaye fan laa ko mën a amee. yii yaa ngi koy amee ci maam Cheikh. ah kon nañ xool si maam Cheikh. kii mooy maam Cheikh. maam Cheikh ma nga ca dëkk bu sell ba Touba Mbacké. ci diwaanu Darou Khoudoss jàkkaarloog Assane Baye jagal communication. boo ñëwee ba mbaarum Darou Khoudoss jël tali bi nga xam ne moo jëm gaarasu Daaru. bala ngaa egg ci station bi foofu la place bi nekk. nga fekk fa maam Cheikh mu jaay la ci baylaat yi nga xam ne. boo ko solee di nga xam ne sol nga baylaat. baylaat yi dara ko jaay ci engrais wala demi engrais. waaye maam Cheikh yemul foofu de. maam Cheikh dina dina jaay ay mbaxana unique ay mbaxana bay baat. ba tey maam Cheikh yemul foofu maam Cheikh dina jaay ay jàllabi dina jaay ay mayeluus dina jaay ay bay soxay bu dina jaay ay abaye du ma fàtte itam ay sijaada ak ay der dana jaay itam ay maxtu lépp loo soxla lu jëm ci bàyyi laat ak yemi àndal demal seeti maam Cheikh boo demee da nga ko fa fekk insha allah yimut foofu de am na itam ay marakis double talon am na itam ay dali der maam Cheikh dana jaay ay kaala maam Cheikh yaay jàmbaar li ma fi lim yépp yaa ñu ko andil ngir jokkoo ak maam Cheikh jël numéro téléphone yi 77 241 18 18 wala 76 729 41 27 bu ko defee nga jokkoo ak maam Cheikh daal di وبعد فالقلب